waaw maa ngi sant yàlla bu baax yëfi yëfi yëf fa mu doore ba fii ni fii ba fii nu agsi sant yàlla rek a ma war parrainage yàlla dimbali ma ma jàll ko yàlla may ma kàttan yàlla may ma xel mu rafet ba ma jublu ci campagne bi def li war li ma war def ci campagne bi ba ñepp di rafetlu sama campagne amul ben sénégalais bu ma wote rafetlu sama campagne tay nak li ma déssé ta mo war ka def ta mo sama war gar ta mo mujj ci sama war garu élection moy ma ñew voter ñew na rang ci gannaaw sénégalais yi voter ndax dama bëgg sénégalais xamni li ma leen di dig ëlëk su yàlla dogee ma jiite réew mi dana am Sénégal yëpp ay yem ay yelleef Sénégal yëpp ay yem ay droit looloo tax ma rang na ñëpp pour ñëw vote waaye nag sant naa yàlla bu yàlla defee tey ma doon candidat bi nga xam ni si juróom yi man kese maa si voté Touba lu tax ma sant yàlla ndax ñëpp xam ni Touba mooy sama base waaye nag ñëpp xam na ni ñëpp xam na ni aussi Sénégal yëpp ma ñor Touba mooy sama base li jamono seigne Saliou la ka defoon kon li pagoutefu seigne sëñ la te ma ngi sant yalla bu baax bima continuer tay ba voter ma ngi ziar kilifa diine yep, di ziar seigne Mountakha mbake di ziar di yeesal sama njëbbal di ziar seigne Mbaye Sy Mansour ak kilifa diine yep Sénégal yep la boole nuyu di len ziar defna lima li ma ma def ko li damay dem toog déglu sunu borom déglu sunu borom lu mu dogal ñu nangu dogalu borom bi waaye am nañu yaakaar gu dëggu kon yaakaar googu yàlla bu ko yàlla tas jërë ngeen jëf